Pape nee na nga wax ci Bassirou Diomaye Faye man je sais que c'est un excellent président. il est jeune dañ koo jàppale. dañ koo xeex parce que ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi sur le terrain di xeex. pour jàppale ko waaw gis ngeen ma c'est c'est vrai mais ça ne pas dire que on attend des de responsabilité ñun ku ñu xam xam na nous sommes dans la constance. Mm-hmm. dinañ la jàppale ba nga falu mais dañ lay dimbali. Mm-hmm. dimbali ko nag mooy wax ko bu defee erreur nga ne la. changer leen ko wala ngeen expliquer ñu ñun ñu comprendre parce que y a des informations yoo xam ne ñun peut-être mënuñu ko am noonu moo tax nag c'est un bon président et di ñaan yàlla mu réussir loolu lañ bëgg danañ ko jàppale pour mu réussir il a les compétences et cetera on a une autre yoo xam nga ci dara 2009 ba daal mu ngi fii c'est une exemple bi léegi nous sommes dans la constance te ñun ay banque la ñuy bëreel xam nga ñun xeexuñu ak état ay banque ay borom xaalis la bëreel ñu am constance mais faites-nous confiance